thank you Merci de nous avoir suivis, amis internautes de Dendal TV. Bonsoir, bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver également. Quel plaisir de venir vous servir. Comme vous le savez, c'est déjà comme l'international, Khalebeti Telebi, Khalebeti Radio. Alors, ça fait plaisir de vous retrouver encore avec Sister Fatima. Mais modeste, histoire de vous donner le temps actualité ici sur Dendal TV. Avant tout d'abord, permettez-moi mon cliff dîner cliff à de la nyanal good fan word ak wexle té de sak suñu ñaan bu baax baax baax ñi nga xamné ñu ngi ci la lobito yalla fogg seen bop mais également ñi nga bi féete na leen ginnaaw yàlla gën na leen fa bañ a defar leen fay delloo luy ton ak actualité di jàkkum ici sur Dental TV accompagné avec Sista Fatima l'animatrice de la nouvelle génération xaari Sista maa ngi lay bëggee de. bëgg naa la akum. ci loo ne. maa ngi cool waaw mais ci lay dox. ci lu baax rek. xam nga Wally Seck daan na wax tas sa sëba. déggee kuy tas sa sëba waaw mais yow tamit sa sëba baax na de. kon laa si waaw kuy tas sa suuf. kon non waxal non xoolal amul def si kot. Fatima waxal kuy tas sa suuf ah non mais warul warul. en tout xam na boppam. te am na kuy tas sa suuf yow. yooyu arrêté. vas-y allez. maa ngi yi ñuy seetaan. merci beaucoup Dental TV di nuyu tonton Wagan mi nekk si caméra bi. di dugg si hôpitaux yi di ñaanal ñi tëdd si lalu hôpital yàlla fëgg seen bopp noonu lañ koy ñaanal ne ñi nga xamante ne caabi féete na leen ginnaaw di ñaanal kilifa diine ak kilifa aada yi delloowaat la kàddu gi tey lan nga ñu indil. waaw mais temps ak actualité rek xam nga Sénégal moom chaque jour am cas yu bees. te fii lañ koy traité fii ci Dentale TV. Mhm. demuñ ci Sala Yaye Nder.

mooy ki gën si ñun mhm. ki gën si mbindeef mhm. ah moom la yàlla woolu mhm. moom moo gën képp koo xam ne rek nit la alors euh, Sista Fatima bi nga déggee Guy Marius Sagna takk na ñaareel tuub na doon na musulman lan la la def loolu la ñuy wax alhamdulilahi rabbil alamin mm, parce mm. loolu sant yàlla la ndax mm-hmm. luy yokk xeetu Seydina Muhammad mm-hmm. moom du ñu def lu dul am si kontaante mm-hmm. bu yàlla defee moom mu jóge ci li mu nekkoon ñëw fekk si li nga xamante ne moom la yàlla gën a bëgg ba pare ñu tuddee ko ki nga xamante ne moom la moom moo tax ñu sàkk ñu walaay ndeysaan sant yàlla walaay ndeysaan waaw di ko wax bienvenue mhm. alors bienvenue Mouhamed Sagna ñu ngi lay souhaiter la bienvenue parmi nous alors ñu gis aussi ki nga xamante ni moo di Cheikh coro euh, Cheikh Thioro nag kenn dootu ko présenté Serigne Thioro kenn dootu ko présenté moom mi ngi basé wu Touba mais nag moom mingi ngi félicité di souhaiter la bienvenue Guy Marie non autant pour moi ça Mohamed Sanya fi si fi fii si xétu islam diko buñ paré ci ka bobu dañuy dem directement si li nga xamante ni indi ciow ci dëkk bi euh, moy mhm. euh, li nga xamante ni dialogue bi mhm. ñëpp xam nañ lundi ak mardi ñi ngi woon euh, palais de la république di def li nga xamante ni dialogue. Et dialogue instant bi nii à ce qu'il paraît euh, d'après li ñu souligné moi mois bi presque les mu moi mois bi si top, moi mois de ramadan ken mënu ci mais d'après euh, euh, s'en ay manam dialogue ak seen waxtaan dafa mel ni nañ élection le deux ans yi mm-hmm. incha allah lañ fas yéene daal di changer suñu président indi président ah waaw la 2 juin duñ def lu dul am contentement. parce que mhm. loolu la ñëpp doon xaar. Mhm. parce que depuis boobu ñu ngi gis ne dëkk baa ngi yëngatu. ndaw yi mu ngi daw. lu nekk di manifester wu di def lu nekk. Mhm. te damaa ya ne loolu kese moo taxoon ñu doon jaayante. di def loolu kon buñ ko jàppee le 2 def lu dul sant yàlla di ñaan yàlla dimbali ñu ba ñu fekkee ko ak jàmm. ñu def ko si jàmm ak salaam. macha allah ñu fekkee ko si jàmm ba voté d'après ce qu'on voit euh, euh, Macky Sall dafa naroon euh, jóge le 2. Euh, avril la bëggoon joxe couronne bi manam mu jox waa conseil constitutionnel ñu choisir kan moy doon sen président lata ñuy voté mais gis nañ ni d'après dialogue bi gaay yi nañ na Macky Sall continuer même deux ans 2 février bu jàllee non autant pour moi 2 avril bu jàllee na Macky Sall continuer ba ak ñuy changer président gisoo ni sénégalais yi tamit ah ñu ngi wax gisoo sénégalais yi tamit euh, doyaluñ ci Macky Sall ah wa xam nga ñëpp moom mënuñu mënuñoo bëggandoo. Mm-hmm. peut-être am na ñi nga xamante ne. Mm-hmm. ñoom ñu ñoo ñoo ngi ko bëgg ba léegi. Mm-hmm. mais tamit nekkul nekkul ñëpp. waaw ñëppul ah. ñëpp waaw loolu tamit am na. nañ jéem a xool daal en tout cas. nu mu gën a baaxee nu mu gën a baaxee ñu defee ko noonu walaay ndeysaan tarkalla tarkalla macha allah bu ñu paree ci loolu dañuy ñëw euh, ci euh, mbër boobu di euh, Gris 2 Gris 2 nag. nek petit frère Gris Bordeaux Gris Bordeaux ko présenté bi Sénégal. Mhm. a na fi problème ak Zena, affaire parfum mo sàcc sàccul problème bobu dem ba viral On peut partout dans le monde ñi koy waxtane mu donon actualité. di ko ñu dem ba un moment donné rak Gris Bordeaux bi euh, moy Gris jël problème bi amé pour mhm. sauver euh, carrière grand frère am. Mhm. ñu gis dafa menacé won Zena menace de mort ak yeneen ak yeneen ak yeneen kooku nag mu ngi à l'étranger mais daf ko porter plainte fii ci Sénégal di ko gis nañ ni jàpp nañ ko à l'instant mi ngi ci loxo yoon. ñu ngi ñaan aussi justice def liggéeyam Gris Bordeaux également bu dee moom moo def wala deful na génn wax comme ça affaire yi leer ndax à l'instant rakam mi ko bëggoon sauver euh, mujj na dem prison di ko bu ñu ci loolu dañuy ñëw ci actualité Sénégal bete bete nekk benn série boo xam ne sénégalais yi ñëpp koy suivre. te mi ngi def buzz un peu partout sur les plateformes digitales Bété Bété Soumboulou mi ngi ci joué rôle bu ama ama am solo xam naa yaa ngi suivre Bété Bété. Mhm. Euh, Soumboulou mu ngi ci joué rôle bu ama am solo yow film Bété Bété série Bété Bété boo ko seetaan lan ngay sentir. non mën nag wax dëgg yàlla. Mhm. série bi dama koy dégg rek. Mhm. mais gu ma ko yi ma si jot a am ay épisode la. te par TikTok ay extrait quoi waaw si si si TikTok bi waaw mais loolu moom lenn rek laa si wax damaa mhm. bëgg a yi ñu xam ne. Mhm. sumbulu loolu rôle kese la. waaw personnage la personnage la pas personne mhm. personnel. lenn loo xam ne dañ ko kaa bindal jox ko ko. loolu warul tax ñoom ñuy génn di wax. gaa am na kàdd yoo xamante ne moom duñ ko rafetlu. parce que ñu fi jéemee di indi yooyu mën na am nu mu dem te instant yi ñun fi ñu toll dëkk bi fi ñu fi ñu toll. yooyu weesu nañ ko bu yàgg. mais damaa bëgg ñu xam ne carrément du ci du ci sumbulu. du si du si du si sumbulu rôle la bi muy ba tax na euh, man film bi série bi lu ma ci gën a neex mooy dama gis dama si gis saa neex mhm. saa neex bi ñu xam mhm. saa neex mooy comédie bi mu daan def mhm. ancien saa neex bi lañ gisaat si série bi di ko am na benn affaire boo xam ne mi ngi ci biir Sénégal ñu bëri ñu ngi yaakaar ne disparaître na mais disparaître gul ba léegi. Mhm. mu ngi ci Sénégal mooy affaire yu ñee ñoom affaire bala may sa. Mhm. ñoom instant bi nii si loolu lañ. Euh, focaliser xalaat naa xalaat mhm. xalaat naa loolu. parce que loolu nekkul ba léegi tamit ñëpp ñoo ko nangu ba léegi am na si ñoo xamante ne. des na ci ñoom. dama jàpp ne looloo tax tamit ñu indiwaat. très bien très bien xam nga ñu bari ñu ngi yaakaar ne problème ñeño bla may sa affaire yooyu dafa pare jeex biir Sénégal très bien ça fait l'actualité très bien ñu ngi koy dund ba léegi ñu ngi koy dund du coup am na euh, association des zones ñooñu ñeeñoo euh, ca Louga ñoom euh, instant bi nii ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi osé le ton si ki nga xamante ni moo di Soumboulou Soumboulou daal instant bi nii mi ngi dégg lu nekk à traverser boobu te moom rôle kese la siy joué personnage bi muy démonté la peut-être am na ñoo xam ne nee nañ warutoon euh, wax maanaam ay xaraamata njaay yi. wala yenn yi waaw wax loo rek. dañ ko bindal loo rek la wax. man dama jàpp ni dama jàpp ni critique yii ñuy critiquer Soumboulou. Mhm. ce qui veut dire que moom assumé na rôle am. Mhm. maanaam euh, euh, mën na rôle am en fait tu vois. Mhm. vu que ñu ngi koy critiquer premier premier épisode bi. boo ko seetaanee nga gis commentaire yi si suuf ñu koy critiquer ba tey gii ñu ngi si troisième même pas quatrième euh, épisode ngay gis ñu koy. critiquer waaw mais liggéeyam la. Mhm. liggéeyam la wallaay wallaay moom amuñu lenn li nga xamante ne war nañ ko kaa mën a wax. moom si mhm. liggéeyam la nekk man daal xam nga lan laa koy conseil mhm. liggéeyam la nekk bu ko bu ko dara tax moom mu teggi tànkam. wallaay liggéey liggéey la aussi ki nga xamante ni moo di Lamine Ndiaye Lamine Ndiaye nekk benn acteur boo xam ne moom it mi ngi si euh, milieu cinématographique bi moom aussi mi ngi wane nii Soumboulou li muy def rôle am la personage la te Soumboulou du mus a jàkkaarloo ak bete bete di leen saaga Soumboulou du musa a euh, autant du mus a jàkkaarloo ak ñeeño yi wala bala may sëy di leen saaga rôle moo di ay ñeeño wala benn xeet ci biir Sénégal moom mi ngi wane ne également am na benn instant mi ngi doon jouer benn rôle homosexuel si benn série te taxul mu doon homosexuel maanaam góor jigéen te taxul mu doon góor jigéen mhm. kon Soumboulou day yeete rek day yeete rek man loolu laa jàpp day yeete rek jarul ay. am na am na ay rôle yoo xamante ne moo gën a garaaw rôle bu mu joué. Mhm. te accepté nañ ko fii si réew mi. si loo xamante ne carrément day won day won xale yi day jàngale xale yi loo xamante ne nekkul lu baax. te terewul am na ku ma musa woo si benn série. Mhm. na ma dama bëgg nga joué rôle góor jigéen. waaye gis nga du ma ko ñaanalee ñaata série nga fi gis ñu fiy joué ay rôle góor jigéen. ma ne ko ma ne ko waaw loolu moo gën a xaraam ma ne ko bu dee da fay lu baax wal sama ma waakaan moom mi ngi mi ngi ci ànd pël la waaye ah, bu ko woon su boobaa lay dégg jàngale dong la wallaay ndeysaan jàngale yow actrice nga moo tax actrice nga moo tax mais mais man tamit damay imaginer la bu toogoon fii di saaga xalpulaar yi tukulóor yi tukulóor xawaamata njaay yi non duma ko ko may xalaatuma ko duma ko ko may alors Fatima daa mel ni lii lañu amoon laataa ñuy terminer si message Wally Ballago Seck bi mi ngi wane ni mhm. sénégalais na seen xel dal bàyyiwul musique mhm. te mi ngi ci ay projet incha allah dina ñëwaat dina yëngalaat game bi incha allah rabbi mais à l'instant li ñuy xaar la le kenn xamagul waa lan lay indi le 12 mhm. léegi ma bàyyi la rek nga daal di tàggatoo wax sa dernier mot daal di tàggatoo waat waa waaw alhamdulilah mhm. li ñëpp doon xaar li ñëpp doon xaar si moom mhm. mooy mooy mooy lii mhm. mooy que mu génn wax waa wax sénégalais yi nag moom bàyyiwul woy lii rek lañ doon xaar si moom waa maa ngi tàggu mbokk téléspectateurs yi di ñaanal ñaanal ñëpp jàmm daal di kontaane tontoo waagaan